Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor. na nga def. waaw ça va soxna si naka ma. tur bi nan la. si tur bi El Hadj lañ koy wax. El Hadj Malick est-ce que d'accord nga préservatif yi nga xam dañ koy publicité si télé Sénégal yi. waaw préservatif moom benn instant parce que dañuy wax comme vie tubaab la quoi wax dëgg baax fii parce que boo xoolee benn instant am na avantage mais am na inconvénient. kon daal sa gis-gis mooy yow d'accord nga ni que ni baax lu baax la. waaw wax dëgg yàlla am d'accord naa si benn côté de mais beneen côté bi tamit am na inconvénient daal waaw man daal lu ma gis moom baax na amul kii de amul gaañe de wax dëgg yàlla. est-ce que tamit du nekk loo xamante day yokk ay euh, ñaawteef si dëkk moom c'est li ñuy wax rek ñaawteef moom xam nga yàlla moo bind lu baax bind lu bon te ala kuliyaalin moom ñaari yoon moo am bu baax ba bu bon te bu bon bi moom ala si jaar kon nag ñi fi nga xëy ni moom ñoo fi jaar il faut source boo xamante ni dina leen mën a protéger xam nga loolu daal loolu laa gis ne loolu moom lu baax la. kon jàpp nga ni protection la. ah. jàpp nga ni protection la pour jeunes yi. waaw protection la de benn instant parce que benn instant xam nga rek fagaru moo gën faju quoi loolu la ñuy wax. bu baax na nga def. sant bu baax a baax. mbaa yaa ngi am jàmm. sant ñu wér a wér. Jibi Ndiaye waaw. est-ce que yow d'accord nga ci préservatif yi nga xam ne dañ koy publicité ci télé yi. non non d'accorduma. lan moo tax d'accordoo ci. maanaam boo déggee man d'accorduma. daa mel loo xam ne amatul sutura parce que loo xam ne am na ñoo xam ne maanaam bu ñu koy publicité télé da ngay toog sa njaboot toog say famille toog xam nga am na loo xam ne bu ñu koy expliqué ndaw sax des fois dañuy toog ci salle bi ñu koy expliqué ngay toog say njaboot loolu moo tax daal daa ko waruma. kon daal da nga jàpp ne lu ñaaw la. waaw man de loolu laa ko jàppee. est-ce que tamit nekkul matuwaay pour protéger li nga xam ne mooy xale yi tamit rek. non non parce que am na loo xam ne maman boo ci toll rek boo ci tollee rek di nga xam ne man lii toll naa ci boo ci tollu doo ko mën a comprendre mais avant ngay ci tollu nga comprendre ko xam ko pour man rafetul loolu laa ko jàppee man. préservatif yi man d'accord ma ci ñu koy publicité ndax euh, préserver occasion la quoi occasion boo xam ne xëy na boo xoolee fagaru la mais ci anam yow ngay fagaru nga xam lu tax ngay fagaru wala nga am xam-xamu fagaru. mais boo ko publicité nit ñi dañuy xam xam-xam boo xam nit ñi nit ñi nañ cee jaar yàq seen bopp surtout maa yu ndaw yi xam nga jigéen bu tiitee bu tiitul ne man su ma fooyee mën naa mën naa cee jaar am omb moom su boobaa moom day am waaw indépendance du ko loolu moyen la ñu foo ñoom jigéen ñi même góor ñi encore am na góor ñoo xam ne mais bu ñu xamee ne am nañu moyen préservatif mën nañoo jël di photo du ñu ombal xale yi loolu day yàq dëkk bi maanaam pour man daal war nañ ko mën a denc ci pharmacien yi di ko jaar à pet bu ko defee koo xam ne yow sa xam-xam ak sa idée waaw dund na loolu noonu nga mën a dem di jënd ko sa bopp ci pet daal pour man daal waruñ ko mën a wone ci télé bi naan li ak lii nii waaw xam nga ndax télé bi ñëpp a koy seetaan jigéen góor xale mag pour man daal du yoon quoi. xëy na mën naa est-ce que tamit du pour wan leen yoon bi. waaw kon léegi bu nekkee ne pour protéger xale yi la wan leen yoon bi mais tamit yaa ngi may xale yi occasion ñu foo te dara du ci gën ndax nit moom boo xamee ne man su ma defee lii dara du ma ci fekk da ngay am fit def ko ak confiance. mais xale yi bu ñu xamul loolu encore ñoom mën naa wàññi seen foo tuuti ndax pour man moom fii moom préservé préservatif yi moom ñoo yàq dëkk bi moom. foo tollu sax nga koy gis ñu koy sànni ci mbed mi te du yoon pour ñu koy wane ci télé bi moom d'accord ma ci moom su ma sañoon moom ñu téye ko ci pharmacien yi di ko jaay léegi sax dañ koy jaay ci bitig yi te du yoon nañ koy yemale ci pharmacien yi di ko jaay ci ruq ci pet ñu koy jënd ci secret waaw mais d'accord moom ñu koy visite télé bi moom d'accord ma ci loolu moom. merci waaw ok ñoo far. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Euh, maaleykum salaam soxna si. ku baax na nga def. maa ngi lay fay. tur la. Euh, Ndiaye Star. Ndiaye Star tey dañu la doon laaj si est-ce préservatif yi nga xam dañ koy publicité si dañ koy si télé yi yow d'accord nga si wala d'accord. ah préservatif yi ñuy publicité si télé yi ah là pour man euh, c'est normal quoi parce que en fait télé dafa nekk loo xamante ne si dafa yee société bi. donc kon lépp loo xamante ne si dafa baax si société bi parce que préservatif ça préserve c'est dafa nekk loo xamante ni dafay fagaru ngir nit ki mucc ci doomu jàngoro yi nga xam ne mën na jógee ko ci sëy kon yaakaar naa loolu seen normal pour ñu ci yee nit ñi di leen ci euh, sensibiliser pour ñu koy xam di ko di ko mën di dem di ko jëndi di ko mën di jëfandikoo ah bu ñuy def euh, rapport pour man. donc tu trouves ça normal yow. waaw pour man seen normal. bu <laughs> baax na Cheikh Dieng ñu naan ma The Boss quoi gën ma xam si The Boss. The Boss dañ la doon laaj si est-ce yi nga xam dañ koy publicité si télé yow d'accord nga si wala d'accord waaw mais d'accord naa si si benn côté quoi su fekkee niñ koy publicité nekk na anam bu rafet quoi parce que loo dafa nekk loo xam ne nii day aar nit ñu quoi parce que dañoo nekk ci benn moment boo xam ne nii aussi euh, fo mi bëri na lool quoi te aussi bu foo bëree. Euh, préservatif defaruñ ko pour ne nit ñi yàq leen seen bopp dee leen sëyee dee leen fo xam nga dee leen sekk góor ñi ak jigéen ñi defuñ ko mais dañ ko defar por aar nit ñi xam nga te bu ñu defalee nit dara pour aar nit ñi aussi la quoi foog ku ne ñu publicité euh, ku nekk ak sa marque bi ngay defal nga publicité ko pour nga pour ñu mën koo gën a jëfandikoo quoi mais du question dañ koy defar pour ar nit ñi man d'accord naa si loolu quoi d'accord naa si ñu koy publicité. est-ce que publicité bi nekkul dafa favoriser fo non nekkul non nekkul luy favoriser famille parce que benn affaire dafa am euh, instant bi nit ñi dañuy roy tubaab yi ba instant bi dañuy dund loo xam ne nii fi mu ne nii buñ leen aarul rek dañuy sànku feebar day bëri ci réew mi parce que buñ ko publicité wul ñu ñu koy jëfandikoo nit ñi dañuy jëfandikoo dañuy nekk di rapport sexuel xam nga naturel te buñ koy def naturel foofu sida bi dina bëri de ak soppis beeg yenn feebar yi